safoo tey te di salloo saa su nekk di bàyyi xel Seta Dakar bi leen ci xabaar yi ubbi nañu tey ab leelu ñetti fan ngir wax ci lépp lu jëm ci wàllum aviation privée fii ci Sénégal professeur Iba Der Thiam di ñaax gouvernement bi ngir mu bàyyi xel bu baax a baax ci lépp luy jóge ci biti réew di ñëw fii ci Sénégal salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ni ma leen ko doon junjale ci euh, li nga xam ne nag moom mooy bopp xabaar yi coow jib jamono ji ci miim réew ñu ne nag li nga xamante nekk euh, moom mooy yenn xeetu yu mel ni pastille Valda ak it euh, sukkar su beksi euh, dafa rax li nga xamante nag moom moo jóge rek ci li nga xamante nag moom mooy wàllu mbaamu xuux ba tax na nag coow li ne kur fii ci Sénégal kii di Iba Der nag yëkkati kaddu ne dinañu taxaw rek ngir nguur gi mën a seetu bu baax a baax ubbi ay lanket ngir ñu xool mbir mi ndaxam dëgg la am déet waaye sénégalais ñoom it jot nañoo joxe seen xalaat ci nu ni mel dañ leen di teewlu ci micro Nafisatou Thiaw moom moom mënu ko wax si dara parce que xaw ma ko quoi xaw ma si naka lañ koy defaree te te ñu ñu ngi koy jaay daal quoi ñu ngi koy jàlloo waaw ñu ngi koy daal ok merci. bi Passivalda bi dañ ci dangeen dañ dañ gis ne ci santé bi dañ ci dugal ay affaire porc ay affaire mbaam quoi te mbaam je vois que chrétiens yi kese ñoo koy consommer donc man chrétien la mais dama gis ne loolu du yoon. bon li wax ci affaire graisse mbaam bi. récemment bi ñu découvrir ci pass yi bu fekkee dëgg la moom euh, du yoon te war nañ ko arrêté lu mu gën a gaawee parce que nekk ci réew boo xamante ne musulman yi fi ëpp fuuf nga bëgg leen lekkaloo grève mbaam moom du yoon Sébastien euh, Protman nag ab doomi Allemagne la bu bàyyeekoo foofee ci réewam ñoo fii ci Sénégal amal ab gëstu ci wàllum anthropologie di xeetu xam-xam bi nga xamante nag day gëstu bu baax a baax ci lépp lu jëm ci doomi aadama waaye moom ba mu fi ñëwee dafa mel ni sax dafa rek mujj dugg ci leneen lu mel ni mbir euh, mbirum li nga xam ne nag moom mooy njaay moom euh, Sébastien di jaay lu mel ni ay xeetu parfum ba tax nag ki nga xamante nekk moom mooy Néba Guédère sëkk ak moom waxtaan. gis naa benn xaarit ci Pikine donc sama sama sama quartier en fait sama sama en fait en anthropologie sama sama terrain Pikine Icotaf wax nañ deux euh, il a vendu du parfum en fait comme ça il fait sa vie parce que voilà le père il, est mort donc voilà il, il est en fait l'aîné donc il, il, doit voilà et euh, voilà je m'intéressais voilà comment il le fait et je lui ai demandé est-ce que wow, Bangladesh def ci ci. kon sa xarit boobu moo la dugal ci jaay parfum. Hmm, comment. sa xarit boobu moo la dugal ci jaay parfum. waaw dëgg la voilà et euh, bon comme ça il m'a montré comment ça se fait on a est allé à Guédiawaye ah il m'a montré il était voilà j'étais en fait son son apprenti en quelque sorte et voilà il m'a il m'a il m'a montré et voilà j'ai décidé de faire à côté de mes recherches Parce que aussi, voilà, pour gagner un peu de parce que j'ai pas une bourse. Euh, voilà, gagner un peu pour, voilà, pour, euh, voilà, faire ça m'a, ça m'a besoin, faire ça m'a, location. Mais en même temps, vraiment comprendre société bi, quoi. ginnaaw bu ab musiba mbaba kumba dalee fale fi nga xam ne nag moom mooy Nigéria ba lu ëpp téeméer ak juróom fukk ci ay doomi aadama jot fa ñàkk seeni bakkan ci ab roplaan bu mab lu ni mel tax na nag askan wu nekk ci aéro wetu aéroport Léopold euh, Sédar Senghor ñoom nag jamono ji newalatuñu bay yandoor lu ni mel tax ki nga xamante nekk moom mooy Mame Bissine Dione defal nañ ci ab reportage. dëgg-dëgg bu nekk bu ñu yeewuwee ñu ngi xalaat loolu parce que aéroport bi ba bu mu nekkee fii nit ku nekk ku si dëkk da ngay ragal ne lu mel noonu mun na am parce que avion yi fu ñuy ñëw tegu ak fu ñuy jógee dafa jege trop suñu kër yi. bés bu nekk ñu ngi xalaat ne loolu mun na am nu muy amee mooy euh, avion yi fu ñu jógee pour ñëw wàccee foofu yëpp ay kër la ba fu ñuy jógee tamit pour euh, mun a jóg dem seen yoon foofu yëpp ay kër la te bés bu nekk xalaat nañu ne loolu mun nañu dal mun nañu mun nañu ñëw daanu si suñu kër yi mun nañu itamit yàq lu bëri maanaam am na lu bëri loo xam ne mu ngi si biir. mun na indi ay feebar parce que soo déggee lu bëri luy xew si biir avion loolu risque bu rëy rëy rëy la ñu nekk di si di si daw. man kay mooy lu may yëg moom wax ji ragal dong ragal dong lu daal Nigéria daal ñu quoi wante ñi ngi ñaan que vraiment yàlla musal ñu ci ces de de crash là. man li ci mën a wax mooy ñun dëkk nañ fii si man sama bopp. depuis vingt deux ans buñ koy xool télé chaque jour da ngay am conscience ne fi nga dëkk c'est pas sur mais ah ñun Afrique lañ dëkk am na loo xam ne duñ ko def suñu bopp ñu ngi daw si ay risques yu dul lii te lii risque la xam nañ ko ñun ñëpp mais nag amuñu ñi nga xam ne dañuy ñëw taxaw imposé ne lii amul te dañ koy tere loolu liggéey nguur la defuñu ko. ñun depuis bi ñu fiy dëkk parce que depuis lors bi ñuy créé aéroport bi bu ñu ko cerclé woon ne fii kenn du fi dëkk kon kenn du fi dëkk. ñu desandi ci mbirum roplaan ba léegi roplaan yooyu sax daanaka fu ñuy jóg wala bokk fu ñuy wàcc ñu koy wax nag lii di aéroport wala bokk aviation euh, tax na nag ñu daal di ubbi ab lël fii ci Sénégal jàpp ko tey nag lël boobee na dem ci ci diirub ñett ci ay fan lu war a toll si juróomi ñaari ci ay réew Afrique ñoom ñoo daje fii ci Sénégal ngir amal nu ni mel luñ ci fas ne waxtaanee nag moom mu jëm euh, ci wàllum aviation privée maanaam ñi nga xam ne kenn moomu ko fas yéene sàmmi kaaraange nu ni mel ambassade bu France bi nekk jamono ji fii si Sénégal bokkoon na ci biile ndaje ba na sax daal may li nga xam ne nag mu may ab ndaamaar ñii di douane bu Sénégal Sénégal ginnaaw bu mu daanee Libéria fii ci stade bu Léopold Sédar Senghor ñu ni mel tax na ba léegi lii di xelu askan wi daluñu waaye tamit xelu ñenn ci ay joueurs Sénégal tamit daluñu ku mel ni Lamine Sané moom gis na ni sax li nga xam ne nag moom moo jëm ci wàllum euh, défense bi faaw ñu defaraat ko jekkalaat ko laata ñuy dem fale fi nga xamante nag moom mooy ci euh, Ouganda muy fas yéene jongante nag ci li nga xam ne nag moom moo jëm euh, ci ñaareelu wërngal lii di éliminatoire coupe du monde 2014 yi askan wi tamit joxe nañu seen xalaat ci ñu ni mel ñu teew leen ci micro Sadio Doucouré doxul nag waaye tamit ja euh, mënuñu leen tamit euh, critiquer ci côté boobu parce que li ñuy wax rek peut-être euh, équipe bu bees la. défense bi moom il faut mu am problème quoi vu que boo ñu fa tegoon c'est la première fois ñuy football ci équipe nationale bi en plus public bi da leen teg pression te gars yi ñoom instant bi nii résultat court court lañu bëgg. problème mu millier milieu bi dafa ñu war a di xeex waruñu bàyyi dara mu sedd. problème bi yëpp milieu la rek Sénégal lu mu ñàkk lu nekk ci milieu la milieu. en tant footballeur yaakaar naa loolu lu normal la quoi parce que déjà dañuy soog a démarrer démarrer équipe nationale bi ak jeune joueurs yoo xam te ñu bees lañ donc amaguñ temps ñoom ñaar jouer ensemble donc il faut mu am c'est normal mu am mu am kii yooyu noonu manquement yooyu noonu quoi donc il faut juste ñu aider leen te mu jëm leen réorienter mettre leen dans des dans des conditions de travail pour ñu mën a dem ñoom ñaar. loolu aussi du dara quoi foo dem aussi ñaan ñu bees ñu ànd rek dina am dina am dina am ay failles quoi maintenant au fur et à mesure ñuy ànd ñoom ñaar di jouer aussi affaire bi dina dina dina xaw a changer quoi dina xaw a changer. mbokki xabaar yi buur nañu ñu leen di jaajëfal si teewlu bi ni ma leen koy waxee saa su nekk rek seen kóolute moom moo ñuy dooleel saa su nekk ñu leen di jox dig daje ni ki ëllëg si yeneen xibaar fii ci Seeta Dakar mi leen di jox ay xibaar yu leer te wóor jàmm ak